fay may sant yàlla pëti ñoo bokk ndey ak baay may seen taaw mm-hmm. euh, euh, ah, <laughs> sama rakk baax na grand boo xoolee li fi ñëw démb ak tey nga xam ni pëti baax na grand petit imagine toi ku xool sa yaay ne ko waaye yaay man tibile mii bu gaañuwee yaay sama àdduna nan la war a mel naka te petit may njëkk dee petit bii tëdd guddi sax xam nga lan lay wax yaay sama yaay bu mag sama yaay mooy yaayam bu ndaw danaan la je t'aime I love you baal leen ma ak moom loolu lay tëddaale wallaay du affaire témoignage de yàlla ma tiim yàlla lay wax ay grand moo baax petit gommage picc yii dindi bëggul sax nga laal diwu xeesal petit moo may firi ku ma xam rek ku gis samay statut gis sama yaay mooy fobeere néeg sama yaay day fobeere guddi fobeere bëccëg mooy ñu seexlu ñooñ mooy fobeere armoire yeeg kilim yeeg ventilo yeeg lépp mooy defar il est tellement disponible petit jullite ku ko xamul pëti alxuraan lay jàng amul xarit demul dikkul petit da nga imagine toi ñu koy forcé naan ko petit mm-hmm. doo am gel war nga présenté di ko tooñee petit léegi yow kuul nga de da ngay toog rek sa kaw mu ne ma tibile àdduna daa yàqu nit yi dañu dañoo doy waar mm-hmm. ay petit booy jëw sax di foo nii di wax ndax di wax foo foo rek petit danaan la mm, mm, mm, ñu naan ko xool ko ngay mel ni muuma sa rakk ku góor ki suñ taaw bi ku góor ki maa ko mag danaan ko mooy suñu kilifa kilifa kër gi barki démb petit balaa sama papa di gaañu petit nekk ak moom hôpital moo fay fanaan petit ku boppam di metti petit moo lay ñaanal mooy mocc bët te wallaay azim da lay moccal sa bët da ko day mocc ba nga xamante ni grand petit baax na. mu na ndaw loo xam ne yàlla da <laughs> doon na noonu ndaw loo xam ne nii ku ñu yar aussi la ci diine. xam nga nit nee na bu leen jënd ndugg bu leen ba may dem di jënd ration pour dëj bi am ku nañu bu leen jënd de bu leen jënd petit mooy defaral boppam dëjam ma ne ko non xaaruñu dara ci kenn macha allah ci famille bu ñu bokk macha allah ma ne ko man xaaruma kenn ci dara lépp la ñuy jënd